Real ba léegi nekk ci tànku Sadio Mané club espagnol bi soxla sénégalais bi nga xam moom mooy football sa Liverpool di Sadio Mané di ko topp ab diir ba léegi bàyyiwul te tey la gën a firndeel cofeelam ci saajo maane ñëw footballal leen foofu nga xamante ne si moom mooy sa Real Madrid ci noonu la équipe bu espagnol bi fexe ba ñi nga xam ñooy ay dirigeants di déggante ak ñi yor wàllu jokkalante ci saajo maane bi ñu déggoo ay yooni yoon ki nga xam moom mooy Zinedine Zidane moom sax fexe nan ba mu jokkoo ak saajo maane ci téléphone mu xamal ko ni ni ko fi mu toll nii moom daf koo soxla lool lool ci équipe bi li tax mu gën koo soxla mooy ki nga xam moom moo di Gareth bël ak James Rodriguez dañ fay waaj jóge ci weer yi nga xamante ne si moom la ñuy dëgmal. te ci noonu équipe bi soxla na ab yokkute ci attaque bi te seen xel demul ci kenn kudul saajo Mané ngir mu ñëw fa di leen dugalal ay but comme nam koy defee ca Liverpool. Sadio Mané intéresse toujours Real Madrid. Les dirigeants du club merengue Real Madrid ont effectué les premières manœuvres auprès de l'attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané. le futur ballon d'or africain aurait été contacté par des dirigeants du Real Madrid par le biais de ses représentants. D'après la presse espagnole, même Zinedine Zidane a parlé directement avec Sadio Mané par téléphone. Le Real Madrid qui est en train de chercher un nouveau buteur qui sera capable de redonner à l'équipe son vrai visage a fort probable départ de Gareth Bale et de James Rodriguez annoncé dans les mois à venir incite davantage les dirigeants merengues à vouloir coûte que coûte mettre la main sur Sadio Mané qu'il pense être la meilleure solution. Un talent que le coach français Zinedine Zidane souhaiterait associer à Karim Benzema, dont sa prolongation est déjà ficelée pour construire un dieu de feu.